ba léegi waaye yàlla dafa àtte ba mu fi jógee nag ba léegi yaram wi xaw ma jàpp yaram wi xaw a diis jàpp moo ma tax yéex a ñëw moo ko tax a yéex a ñëw nag maa ngi leen koy mi jéggal ngi leen koy jéggalu yéen ñëpp ngeen xam ne loolu ngant la ngeen xam ne lii mu leen nettali ngant la te fal uzru inda rijalillahi te kat maqbul ngant ci nit yàlla yi dëgg-dëgg lu ñuy nangu la te ñu ngi am njort ak rajaau ne ci ngeen bokk te mi ngi am jot war a ay yaakaar ne ci gaay yàlla yooyu kat ci ngeen bokk
yal na ko yàlla def na ko yal na ko jëme kanam ne def na ko nag ci ngeen bokk waaye yàlla na ci yàlla jëme kanam ma wax sëñ bi nag ne ko su ma nuyoo mbokk yi ba noppi mu ne sëriñ bi sëriñ Mansour su ma nuyoo nag bokk yi ba noppi li war koo ne waxeef yëpp li war kon waxee fi lépp teg naa ko ci sa loxo teg naa ko sa loxo nga wax ko nga wuutuñu ci ne nga wuutuñu nga wuutu ko ci li ñu li mu war a wax yëpp dimbale ñu ci dimbale ko ci itam ndax yaram wi diis si moom ndax yaram wi diis na ne loolu ñaan na ko sëriñ Mansour ba sëriñ Mansour may na ko may na ma ko ne fu ne jaar dafa am waaye daal may na ko nag waaye nag mburu bi mu laata sotti dañal ne waaye daal bi mu ko laataam rek mburu bi mu laata sotti nekk mburu lekk daj na lu ne ñaar ñaari bayt rek laa koy firiloo su noppee ne ñaari bayti rek lay firiloo sëriñ Mansour su firee ñaari bayti yooyu ba noppi mu di mujj miimi ya dégg naa fa tabarakallahu biig Moustapha Diop wax na ma ko ne fatakallahu bi xaaj Moussa Diop wax na ko muy mooy mujj miim ya bëgg naa ci sama wàll nag bëgg na ci wàllam ñaari bayti rek mu firi ko ci ñaari ci miim ya ñaari bayt
rabbi bihim ne rabbi bihim rabbi bihi wa bihim abris suluka ila rabbi bihi wa bihim abri suluka ila ak y- yëpp ak a ak ya ko féete kaw وبي ام ابقي سلوك الى طريقة الرشد والخيرات والاسلام على نبي وعليهم اجمعين سلام ربنا دائم من عمال ربي بهم وبهم أب سلوك إلى طريقة الرشد والخيرات والإنسان على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما وما الكبير حبيبي وحبيب أبتسمك إلى طريقة الوصل والخيرة والسلم على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما آمد سبيل
mun
waaw waaw waaw
waaw kay
Thank you. طريقتي طريقتي ولها ولا ترون حمدا حمدا يوفي وجعلنا ذلنا وقوة مولانا لربنا وربنا والكافرين في جميع أنت الوافي أنا آمننا وفرت مولانا لربنا وإلى وإلى سيدنا آمنا ربنا وإلى وإلى وليس لي آمال آمال ألقاك يا أماني المدن ما سوى المحا سوى المحبة والغيب هذا لا عند الله في والمحبة والغير أراد به وبه وبه أغفرك إلى مدن طريقة رشد والخيرات والرسم السلام عليكم السلام عليكم maa ngi nuyu sunu wajur wu tedd yi muy papa alxaaji abdul aziz yal na ko yàlla may wér yal na ko yàlla may gudd fan yal na yàgg ci sunu kanam yal na nu yàlla yàgg jaboote yal na nu yàgg yal na ko yàgg wuyu si man nag tey jii day la bukki ci lépp daje woon ak gaynde mu ne ko foo jëm mu ne ko damay aji mu ne ko saaj yegg na waaye jaaxle naa lool góor gi toog di ma firiloo waxi baayam ngir bëgg leen a sawe bëgg leen a sawe gis nga xaw ma ban siyaar xaw ma ban siyaar waaye bi wóor na mën nangu na waaye loolu noonu sax waay soolul xasan arab da ko fonk mooy arfaan bu rafet bu Muhammad jógee Makka ñëw Madinatul Munawwar dafa mar dox ñu ko addaaya balan saar yi mar wax addaaya balan saar yi ni ko dama mar Muhammad woo benn xale bu tudd najiix naka la ni najiix najiix najiix Muhammad ree xor Abubakar Sadiq ni ko ak jàpp yaa Ababakar da nga arfaan ji mu ko taxoon yàlla daddaay loolu ñu dem Madina mucc nga mucc naa génn nii mi la génn nii mi la lu ko waay ñaan yàlla faj sa aajo maa la ko wax sama maam laa bir gi dafa ëpp xamdan yuwaafi bi anaamin lana wafarat min rabbina wa yukaafi fi bani niami أتمم لنا نورنا واغفر جرائمنا تقضي حوائجنا يا واسع الرحم يا واسع الرحم يا واسع الرحم سامام نينا اتمم يلا مثل yow yàlla lanaa ñeel nu noora naa sunu leer waxul nóora hookat noora naa la wax sunu leer lu ngi ci boole waay waaye lu ngi ci boole waxul noora rasulallah bi waxul nóora hoo noora naa la wax waaye lay ma lu ngi ci boole waay sama waxaat na ni waqad saqaanaa خالق العباد ثمان مرات بنور الهادي يلا نان لا جوم نيتيام تي نور محمد موتاخ مودني ادم لنا نورنا نور من النور قد اوضته حكما تفيض فضلا على الاخلاق يلا ادم لنا نورنا وقد سقانا خالق العباد ثمان مرات بنور الهادي ba nga nekkee toqatuma nit ñi mu naan dal la ca ñeen fukki fan lumb ñeen fukki fan suux ñeen fukki fan ñu sàng yax mu daan dal nga am juróom benn weer mën la cay yi nga dem bay judd mu naan dal nga tiir sa weeru ndey mu naan dal nga raam mu naan dal nga ne xëri liggéey mu naan dal moo tax ma dana at na naa noora naa wax fir yàlla nga jéggal yow yàlla jaraa ima naa suñuy bakkaar lu ngeen wut si fii lu ngeen fi wut si du ko leen jégal bàkkaar baxfir jaraimana jég sama bay àlla yëpp leen jéggal nañ leen seen bàkkaar lu ngeen di waxati waaw bi ñu jégalee suñu bàkkaar tax bi xanaa i janaa tax bi yàlla nga faj xanaa i janaa suñu aajo loo ci wax aajo yi faju naa sama bàppale na aajo yi faju na
الحوائج الجمة لا سكت لكنها تقضى
mani mani admin lana noonana waxfir jaraimana tax bi xawaayijana saa mbaay fenn waat na sama maam léegi nga ni lan
إن الحوائج جمة يا سادتي ولا يا إخوتي لكنها تقضى بجاه محمد
loo lu ngeen ci tegati soo mbaay nee na yow yàlla aajo yi bari na aajo yi nee na gàññe waaye aajo yëpp fajees na ko ci daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ngeen di waxati yéen seen ziara baax na lu ngeen yëboon ñibbi léegi tax bi xawaay janee yaa waasi arruxmi yaa waasi arraxmi yaa waasi arraxmi مثلث الحائي يا واسع الرحم يا واسع الرحم يا واسع الرحم يوم يا يرمري مرحمي يا واسع الرحم يوم في كبير نت ندف كعيسين من تعرف دم بدم جمج نام لك دمان بتب دول بفوت fekk sa biir ba loruwul bu doon lekk ñu wëlbati ko bu féete gannaaw lekk nga jaar fa mu luux luuxi sa biir dara dalu ko fa arrivé lul dàmm kooku dafa naan waa sa rahim la te kat kooku nga sàmm ci biiru ndeyam dara arrivé ko buy judd boo tasee bakkan ba bolu ko gémmiñ ci waxtu rek mu dee lu tax kenn fekk woon yàlla ci biiru ndeyam léegi nag kenn la ko fi yëppali moo tax loola xew yaa waasi arrahimi ak yaa waasi arrahami yow mi yaatu ay may kon nag xamdan dëgg sama maam gis nga xamdan nit ñi mën na faj Sénégal bépp wallahi tallahi xamdan ala anaami yuwaafi kama yukaafi ala masjidi moo leen xamdan yi moo ci gën a garaaw sama maam dafa laa bir génn ko indi ko ci niini ye waaye ëpp na maa la ko wax adama abul bashar ba ko yàlla wàccee xamdal bi la ko jox soo koy jéggal am na benn nitu yàlla am na benn nitu yàlla bu dem makka toog ci yendu doj ne xamdan ala anaani yaafi kama yukaafi ala masidi ca déwén sa mu del si bëgg a toogaat ca doj wa am na ku ne ah bu fi toog lii nga fi wax daaw ba ren ñu ngi bind ci jeexul toogal ci beneen doj sa ba lu kat loolu la moo diran ki ne xamdan bi anaamin lana wafurat min rabbina wa yukaafi zayda min naami xam ne dama sag sab sant bi anaamin ci xéewal yoo xam ni wafurat law na wafurat nee na gàññ wafurat bari na lana yeen min rabbihi bu tukkee ci boromam wa yukaafi te muy dolli ak te muy matal zayda ndooleel ko min naami ci xéewalu yàlla xam ne la boobu moo gën a garaaw ci xam ne yëpp foo ko ñaane foo ko waxee yàlla faj sa aajo te góor gi nee naa ko firi lu mu jublu ci firi gi mboolem ku fi ñëw ku ñëw te ci siyaara bi sa affaire baax ku ñëw mucc ku ñëw la nga ragal mu dañ ku ñëw la nga wuti nga jot ca ku lu ku ñëw la nga jaaxle woon yàlla dindi ko ku ñëw boo soobaree wér mu ne nag sama maam nag ni rabbi bihim rabbi bihi wa bihim dëggal يدعوك إلى طريقة الرشد والخيرات والأيثم قول مولا ربي به وبهم نبغي السلوك إلى من يب ملامنو دقل موضوع جسد به وبهم ربي به وبهم صدق أخي dafa garaaw rabbi yow sama borom bii ca muhammad dong dong dong wa biim ay yonent yi dong dong ab ki lay sàkkoo sulooka waaye du keneen bu doon ab ki sulooka bii wa biim mën naa am ci muhammad ak keneen ak gaaña ak ñeneen waaye bii wa biim ab xii taxis gaa tax iyaaka yoo dong dong naabudu lay jaamu wa iyaaka yoo dong dong nastaayinu bii ci moom dong dong dong bii ci ñoom dong dong dong ab ki lay sàkkul si logga ak soobu ci lan ila tariqati rushdi jëm ci yooni njub wal xayraati ak yoonu yi wal isami ak yoonu mucc yàlla na ko yàlla boole defal góor gi kat góor gi kat toppatu leen ko dara dara dara mu ngi topp waaye toppatu leen ko yàlla yàlla nangu yëpp ñu ngi koy ziyaara di leen ziyaara ci biir ziyaaraam buñ ko xasee ziyaara ziyaar nañ leen ndax ñëpp ñëfama njaboot gi njabootama barab bi barabama kër gi kërama xadara bi xadaraama bés bi bésama kon buñ ko xasee ziyaara ziyaar nañ leen ñu leen di ziyaara ci ziyaaraam ndax moo la ko yónni ci yéen ngeen di balu àq baal leen waay yàlla yàlla boole baal nee na mi ngi ñaan seen tànk yi ne yàlla ko yàlla tànk yërmande ak tànk barke ak tànk sutura ak tànk faj aajo nee na magam ja noonu la ko daan ñaane ki ko suuf booba duwaa u la bi mu demee ban sax nee na duutu doow xabar la doow mooy loo ñaan yàlla ti jote koo ci xabar mooy loo ñaan ba mu nangu nga def ko sa poos soo bay nee na soo maam daf ko yebal ndar ni ko demal àggalal ma ziw ba man nag maa ngi ci taalif bi ifhaam ak kifaaya bi jóge bi yeggee taalif bi yegg ma mën a def seen adduna waaw jeex na jeex na foofu góor gi tudd na ko nag jeex na jeex na kon nag aha
alxiqha bi dal masaaya aha Seydi Hadj Malick wax ba noppi ni ko duwaa wala Hmm.
def Babacar ni ko déedéet xabar la tabbi na ba noppi est-ce que danay nettali ak di sant waaye moom kay la nga li nga bëgg yàlla defal na la ko jeex na kon nag léegi ku fi ñëw rek tànk yi tànk yërmande la barke la sutura la fajug aajo la la góor gi tontu woon baayam kon itam seen dikk gi yéen itam dootu duwaawu xabar la li ngeen bëgg am ngeen ko sama baay nee na seen dikk gi dootu doow xabar la tànk yërmande la ñu barke la ñu sutura la ñu fajug aajo la
ci xabaru Seydi Aboubacar sama baay nee na mi ngi teg wax bi mu wax ci xabaru Seydi Abubakar ndax Maodo dafa ni duwaawul xalifa ni xabarul mu ni duwaawul mu ni xabarul mu muuñ ni kon ne duwaawul mu xabarul sama baay nee na kon seen tànk yi tànk yërmande la ñu barke la ñu sutura la ñu faj aajo la dogu la wéer ko ci yoxu magam ja suñu buntu nar loonaam sax su ma ko bëggee jaare ko ci yow yàlla def ko itam sama baay nee na lii mu leen ñaanal bu naru woon a am bu ko bëggee jaare na ko ci alaaji Malik jaare na ko ci xalifa wax leen ko ñu def ko nee na sax ci xalifa lay yem te sax daf la bëgg a daf la bëgg a mu mànd rek waaye li woon ci xalifa ak alaaji Malik mu ngi ci moom maa la ko wax nit yàlla mel noonu nit yàlla moo mel noonu mooy nëbbu boppam waaye li woon ci xalifa ci Mali ci wilaaya na ci alxaaji alxaaji Malik ci wilaaya ak Mali min ci àlla jàbb nañ maa ko wax de maa ko wax de su subax lu ñëwee du ma tañu de bu dee ngor bu dee diine bu dee ragal yàlla bu dee xam bu dee wottu bu dee teey bu dee bëgg lu baax bu dee yaatu bu dee am jàmm bu dee bëgg ñëpp ngir yàlla
dafa am benn waay boo xam ne asalaamaaleykum sëriñ bi ne dafa am benn waay boo xam ne bii damay bëgg a nettali waxam day bëgg a nettali waxam comparé ko ak sama diggante ku baax yi tëdd fii comparé ko digganteem ak ku baax ci tëdd fii si da Abubakar radiyallahu anhu
te kookee kookee yaaka kookee kookee yaakaaroon te ne kookee kookee yaakaaroon ëppaliwul ki ma yaakaar ëppaloo ci mu yaakaar kat dara ci yàlla ëpp ci yàlla dara ëppaloo ko ci yàlla dara ci liggéeyam ak boppam ci digganteem ak boromam ci liggéeyam ak boppam ci digganteem ak boroomam ak ci digganteem ak jaami yàlla yi ak ci digganteem ak jaami yàlla yi ak digganteem ak tariqa Cheikh na Tidiane ak bëggam Cheikhu Cheikh ak digganteem Cheikh Chama Tidiane bi ak bëggam Chama Tidiane Chérif radiyallahu anhu ak bëggam baayam lool lool lool ak nag bëgg a bëgg a baayam lool lool Seydi Haaji Maalik gayra ma marratin toog naa ci xadara ne moom yi toog naa moom ay yooni yooni yoon waxtu woo xamee ne nekk na ci waxtaan waxtu woo xamee ne Seydi Abubakar nekk na ci waxtaan ba kenn sudd Seydi El Hadj Malick ba kenn tudd Seydi Haaji Maalik mu ne neen tëj boobu bunt mu ne ah kon nag ñun tëj boobu la bunt waxtaan wi jeex waxtaan wi jeex na jëmm joojale ne mu ni ko jëmm joojale kaana safihan dafa ne dese woon dafa dese woon ki muy nettali dafa dese woon buur ba mu bokkaloon jamono ne buur ba mu bokkaloon jamono waaje ca dese ga waaje ca dese ga ñëw ca kër buur ba ñëw ca kër buur ba fekk ko mi toog ak gàngoor bi fekk buur bi toog ak gàngooram mu ne sama waa ji ñëwati na di ah buur bi na man ka sama waa ji dikkati na de mu ne ko tey de dama dikke lëf mu ne ko ah tey kat lëf laa dikke de li ma bëgg il faut nga def te li ma bëgg kat faaw wu nga def mu ne ko lan la ne buur ne ko lan la mu ne ko sa doom ji la bëgg a may ma ko mu ne ko sa doomi bopp ji laa nga bëgg nga may ma ko waa gaa ñi rëkkandiku waay waay waay kii de moo neex àddina waay kii kii dafa ngeen ma- buur dara may doomam ma ne leen danaa ko delloo ci teggin te xuloo du ci am nee buur ni leen dinaa ko delloo ci teggin te xuloo du ci am na ko nangu naa nee buur ni waaja nangu naa danaa la ko may demal léegi génneel ma ci géej gi ñetti sëfi mbaam yoo xam ne sadaf lay def da ngay dem nag li ma lay may ndaw si da ngay dem géej génneel ma ci ñetti safi mbaam yoo xam ne saraf lay nekk ci biir géej mu ne ko su ma ko indi nga may ma ko mu ne ko boo kenn dégg ma yàppale loolu su ko waxee mënu ko am mu ne ko dana ci teg sax leneen mu ne ko danaa ci teg sax leneen mu ne ko awma ko ko waaye ki ko am danaa ko jaari ci béréb boo xam ne lu ma ca bëgg dana ma ko jox mu ne ko li nga wax aw ma ko waaye ku ko am dana ko jaar ci béréb boo xam ne lu ma bëgg ci loolu yee kenn mënul am dana ma ko jox mu dem ci sëriñam wax ko ko ne safi waaje wàññi ko ja donc sëriñ wax ko ko mu ne ko wutal say ndab say leket ak say koog yëpp dem ci booru géej gi rek sëriñ bi ko wutal say ndab ak say ko dem ci biir géej di as rek xam nga as géej moom day na xaw xaw na doy waar demal di as rek yow di sotti suuf mu dégg ndigal ne waaje dégg ndigalal sëriñam waaye nag boole ko ak sidq wal ixlaas wal yaqin boole ko nag ak dëggu ak kóolute ak sell ak sellal gu ma sëkk nag ñëw toog ca te- tàkk ga waaje moom wuti ndabam rek ñoo toog ci tàkk ga di tànk di tuur rek di tàng rek ci géej gi tuur rek suuf ku ko fekk na ci wàjji rek doxal gi dëgg lay waa ji moo dof dëgg dëgg géej ku bëgg a as li nga xam ne kenn xam fu mu nekk kii daal dof la mu continué.
moom mu cont fani wu ni continué as ndox tuur rek di ko def ba léeg-léeg su tànqee tànqaale jën wu ndaw di ko def ba léeg-léeg bu tànqee li muy tànqee tànqaale jën wu ndaw su tànqee tànqaale jën wu ndaw su tànqee tànqaale jën wu ndaw ba mu yàgg muy jàpp yu mag ba mu yàgg rek bu tànqee tànqaale jën wu mag jën yi tawat ci malaaka yi amee seen mbir jën yi taw ci malaaka yi ay seen mbir ñu tawatal leen ca ñu yàlla tawal leen tawatal leen te yàlla yàlla ne géej gi goqil ko li mu bëgg mu dem ndax waa ji de li ma ci xam ne mooy leen go- géej goxe ku li mu bëgg ndax mu dem ngeen am jàmm su ko demul kat da leen roñ ba ngeen jàpp tàkk kat mu goqil ko kemtalaay lanoon càkkutéefam ne géej goxal ko kemtaay loolu càqu teefu ci sadaf mu sëf ko ne mu sëf ko ay mbaam dellu si at ca kër buur ba dellu siwaat ca kër buur ba nuyoo nuyoo ñu ne ko waaje day ñëw na ñu ne ko waa buur sa waay yi dikkati na kat waaye andi def de waaye moom de indi na lépp mu ne na dugg si mu ne na dugg si andi mbaam ya mu indi mbaam yi ñetti sëri muy saraf ñetti mu sëfi ne sadaf ko may naa la doom ji buur ne ko may naa la doom ji seddoon ak yow nguur séddoog naa yow sama nguur gi ci loolu yi laa waxee ne lu ngeen bëgg fii yàlla def ko incha allah ne moom it loolu la wax ne képp lu ngeen bëgg fii kat yàlla def incha allahu ndax koo kenn amoon am na ko ci kii mu am ci seen bokk
yal nañu yàlla dimbale si am yaqin ak ixlaas waaye nag yàlla na yàlla dimbali ba nu am yàqin wóolu ak dëggu ak sell
léeg-léeg nga gis lu dul matte ne léegi la gis lu dul matte adamul yaqini ne ñàkk yàq yàq wóolu tax mu màtt la tax loola matte du matte kat waaye ñàkk wóolu rek saa boo soxla baara mu matte ma nga dox baara mu matte la yal nañ ci yàlla mu yàlla na ci yàlla musal aajo yëpp faju na incha allah sëñ bi ne aaji allahumma amin aajo yëpp yëpp fajal incha allahu al amraadu kadalika ne feebar yëpp it wér dina wér al xawaiju maxdiya ne soxla yëpp yëpp yàlla dana ko faj ja càkkuteef ya mu yassaratu jàkku seeb yëpp yàlla dana ko jàppande la
kon nag fa tabaarakallahu sëñ bi ne kon fa tabarakallahu sëñ bi sooy ba nga dolli tuuti te jégal ma sëñ bi ne ne loolu rek tuuti jéggal ko bu dee maanaa garanti bi leen sama baay garanti wax na ko sama baay sama baay it wax na ko sama maam ma zaarakum ahadun yashku hawaijahu illaa wa naala munaahu doona raybaati ala jàddu moo ko xalifa Babacar Si te ay bu rëy la bu rafet mu ñëw jaar ci xalifa def ko ci moom ñu ko maa zaarakum di leen ziyaara ahadun kenn amul kenn ku ñëw sa place yow Babacar Si ziyaar la wax yashku muy tawat xawaayijo ay aajaam illaa wa naa la ndare boobu am na mu naaw mébatam doole rebaati amul benn sikki sàkk loolu Sida Alaaji Abdou Aziz moo ko wax Cheikh Khalifa sama baay wax sama maam يزورك سكان البلاد مزاحما وأنت قياس الناس في كل بلدة